asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di amaat mbégte di dajawaat ak yéen fii ci Tiv Info tey ñu amaat mbégte di dalal keneen ku naan Cheikh Abdoul Dia nekk chercheur fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis yor fa aussi lépp lu jëm ci affaire scientifique yi donc moom lañ dalalaat fii ci beneen numéro émission yaatal donc bëgg a moom lépp lu jëm ci taxawaay bi mu am fële ca université boobu nga xamante ni ay. xalé yi bari dañu joggé fi ci Tivaouane difa dem di yeggale sen jang aussi rôle bobu nga xamni dafa law ba fi ci Tivaouane aussi mako fi jouer difa jappalé ndaw yoy nga xam ay étudiants lañ ak taxaway bi nga xam aussi am ko au niveau local ci walu politique nga xamanteni ni bokk na ci ñi nga xam dañuy accompagner le maire Diagne Sy donc mom lañ dalal fi tay ci tif info Cheikh Abdoul Dia ni ngi lay nuyu. waaw ma ngi leen di nuyu man tamit di leen gërëm di leen sant. di nuyu bu baax eh, wa tif info di ñaanal yalla képp kuy liggéey ci TIV info yalla def la nga xamni ni am ca ndar ñu koy ndar info yalla gën am daraja bu gëna kawé kawe daraja bi nga xamni ni la ndar info am waaw donc cheikh abdul dia ñi ngi lay delo nuyo bobu aussi di wax ñaan yoy amin rek parce que loolu rek ñun moy suñu mbébét mais aussi nit koo xam conquérir na maire bi ba jot ci nekk le premier magistrat de la ville euh, aussi tamit koko tamit déjà man nañ amone na na une base importante quoi déjà avant ngay ñëw quoi. Mm-hmm. non amone na base mais ku xam Tivaouane xam ni Tivaouane dafa spécial ci bi département bi commune bi mo nek commune bo xam lima gis fi dama doon bind ben article mi ngi fee wax ci sur l'actualité politique à Tivaouane bay demander il faut qu'il ait une éthique ci politique tuan fi dénigrement bi yow yaa ngi ci campagne fi dénigrement bi ak xasante bi ak waxante lu ñaaw bi nga xamni ne na fi fi fi fi, fii ci élection yi ci ay nit yi nga xamni yena bokk même coloration politique Tivaouane kese la ko gisee. non mais mais mais loolu mom c'est-à-dire bu nekké ci contexte APR bi ngay waxé ah. wala waxee non ba bo xolé ba ci biir li fi amone parce que ñun tamit élection yi jot nañ fee voyager do gis mukk lu parce que daf fi am. parce que man gis na fi par exemple ñun dem nañ ci ay parce que élection yi man ma yoron commission ma ngi won ci commission stratégie en fait man ak Abdou Aziz Mbeng ak Mati Mbay ñu ñoo fa nekkoon jiital ci nak ki nga xamni moy Magor ndjay ak ki nga xamni moy yelamine Gumbala mais ñun ñu nekkoon ci terrain bi. da ngay dem fenn ñi nga xamni yena bokku même coloration politique ngeen di bokku pour xëccool kenn da ngay bu demee ci kële yow au lieu que nga défendre président da nga naan ko noo noo noo noo kële daal comme ko doxalul bàyyi bay ba élection yii di ñëw ngeen dindi ko loo warul nekk wax ay nit mu ñu àndee yàlla dafa dogal leneen fal di wax dëkk bi tey dafa am ñoo xam dañu fi nekk liggéey fi au même ci que ñeneen ñi yàlla def ñu am ay ndombal tànk te monsieur le ministre am na ndombal tànk Diagne si am na ndombal tànk Cheikh Tidiane Diouf am na ndombal tànk am na ñeneen ñi te pourtant nag waxuma sama bopp de mais am na ñeneen ñoo xam ne lu nee liggéey liggéey nañ lu ko raw wala lu tollook moom te pourtant amuñu ay ndombal tànk am na koo xam ne lu jaañ si liggéey liggéey na lu ko raw wala lu tollook moom amul ndombal tànk mu ngi toog depuis 2012 ba léegi pourtant ñi dara ñi nga xam ne ñoo liggéey 2012 ba léegi ñu ngi fi toog am ñoo amaguñ dara waaye fekkee yow mi am dara encore yaay war di xëccoo wala di waxante yenn li day sax ñaaw bu ko ay nit di dégg parce que fii li fi xew yëpp dañ koy dégg di ko gis ñoo bokk dëkk bi dëkk bi yaatuwul. mais ñi am dara déjà kon euh, ñi nga jotal lim la muy le ministre Abdou Ndéné le maire Diagne Simeng ak euh, la présidente euh, conseil économique. waaw ñoo xam ne tey am nañ benn ndombal tànk boo xam ne légitimement mën nañ leen ko nangul. te ñi lañ ci xam ñeneen ñi nag aussi am na ñoo xam. kon déni dénigrement yi ci ñooñu lay émané quoi ci ñooñu mais moom mais ci ñooñu lay jógee parce que ñun fi lañ nekkoon. ci ñooñu lay jógee ci ñooñu lay jógee parce que ñooñu rek ngay da ngay dem par exemple tey ci ben quartier. donc vous voulez confirmer que discours yi ngeen di dégg comme quoi que woteel len président mais bu sanctionné jotee ñu sanctionné le maire lolu autorité yoy muy. dafa am. kon le ministre vous confirmez que le ministre. ak la présente. man man Cheikh Abdoul Dia maane man mi yor nekkoon ci commission stratégie nekkoon mandataire école 4 je le confirme da nga daan dem ci ben quartier ñu la commission ñu ne benn benn comité électoral ñëw na fi bañ leen waxee ci affaire courant dëkk bi nee nañ carrément le maire def fi daraak bàyyi leen ba élection locale ngeen sanctionné ko loolu fii laa ko gisee Saint-Louis géem a dëkk maritaw ñaan ñi mu koo def Mansour Faye xalaatu ko. mais mais mais problème mu ñaari comité ils ne sont que deux ils ne sont que deux le ministre maritaw gère le département Mansour Faye gère la commune kenn ku nekk ci ñoom ñaan dafa gagné. li gënoon rafet mooy ñun nañu ànd ñun ñeent doon benn ñu ñoo fi am domba tànk am na ñu nekk suñ ginnaaw ñoo xam ne liggéey nañ comme ñu comme ñun lu ñu liggéey waaye nag ñun la yàlla dogal ñu am ndomba tànk dafa war a rafet bu ñu leen posé question boo xam ne këlee ko war a répondre yow mën nga taafantaloo rek nga répondre ma manière brève rek nga pare ci boo gisee sa nawle nag sa nawle bële nga ne ko ah man dem naa dëkk sàngam posé nañu ma question ci lii ak ci lii ak ci lii rafetal naa man toog naa fii campagne ba muy jeex ñu invité benn waaye boo ne turam mais je pense que studio Pape Momar mon mu nekk rajo rajo radio xaw rajo muy wax mais nam wax man rafetlu gis jeune politique bii dafa rafet ans lay doo dem yonam bu ëllëgee da bi koy jarul dingat kële jarul dingat kële fii ñëpp benn lañ liggéey nañ yàlla may nañu ndam am nañ ndam bu set nañ ko bàkkoo nag te jàpp ni dara liggéey ngir li nga xam ne ci lañ jëm yàlla mayaat ñu ay ndam yu gën a kawe suñ njott mais xasante beeg wax critique kii yeeg sànni xeet kële loolu amul benn sens wax dëgg yàlla te loolu nag bëri na fi Tivaouane moom li fi xew moom c'est du n'importe quoi. mais mais mais mais xastante boobu nga est interne boo xamante ne APR daf ko am au niveau national parce que du du du Tivaouane rek moom problème mu ñaari comité. no loolu sax ñaari comité mën na am te yàq ci dara su may wax dama jël exemple ndar ndar Mansour Faye da doon demal boppam mais Mary Teuw demal boppam waaye kenn ñemewul a gis kenn ci ñoom ñaar dem di xas moromam kenn ñemewu ko kenn ñemewu fii rek ngay gis ñu poser question sa morom nga wax wax joo xam ne sax rafetul comme si sanctionné lañ ko liggéeyul dara ak nangam wax nangam te loolu bu seen wax ki war a sanctionné kenn la président de la république moo war a sanctionné mais Tivaouane fii réyul yéen yoo xam ne tey war nañu mën a am yenn problème yi dañoo war a jàppalante doon benn kenn ku nekk jàpp sa moroom xam ni lii lu éphémère la dafay jàll ñu liggéey ngir gox bi liggéey ngir gox bi mooy lan jàppale surtout jeunesse bi te nag fa laay profité wi di invité jeunesse bi parfois su ma duggee Facebook damay gis ni y a beaucoup de jeunes dañ leen di utiliser rek. mais balaa ngay ñëw foofu c'est-à-dire tamit euh, attaques yi nga xamante ni le maire Thiane Sy Mbengue daf koy subir comme ni nga ko. waxee léegi mais attaque yooyu noonu c'est-à-dire yow noo ko mën a jàppee c'est-à-dire yi nga xam ne dañu fi am ndombal tànk dañ koy sot soto noonu nga ko mën a jàppee wala sot soto la kay sot soto la mais ci biir sot soto googu yow ñan nga jàpp ni carrément cest ci yan camp lay jógee bon euh, man pour man daal benn camp bu njëkk camp bu njëkk ci ma jàppee dama jàpp ne le ministre la moo war a njëkk wane la bon exemple gis nga naa la wax benn affaire moo am yaa ngi si meng bu nekkatul woon maire doo dégg mu ñu wax ci moom ñoom la poste de maire rek moo leen déranger poste de maire rek moo leen déranger ministre kawe na yow vous êtes ministre kii il est bu noo xool ci wàllu hiérarchie tey yow yaa ko ëpp ndoomal tànk yi yàlla def na tey moom mooy tey maire yaay ministre am na waroon doxalee man yàlla xam na ne am na loo xam mën mën ma ko wax fii mais damay toog ba càgg gis ñoo xam ni dañoo bokkoon ak moom làng dam naa ñii de s'ils étaient intelligent am na lu ñu doon doxalee ak Diagne lu bëri monsieur le maire mën na ko mën na ko waxtaan ak ñoom mais gis nga nit ki Diagne de lenn rek laa ko apprécier man jàngal na ma lu bari nag moom laa gis nga koy xas di wax ci moom lu ñaaw di wax ci moom lu ne ñu dañuy toog du mës a jël baat tontu leen wala wax leen lu ñaaw benn jour toog naa man mii ak moom ci saalam ak Mass Diagne ak ku ne ñuy wax ba egg si foofu mais ba mu leen di tontu dafa jël benn waxu sëñ Cheikh la utiliser. xomu num ko waxe dal ba ne jarul limi tek dal jarul tont na leen bay rek ñuko ne di wax mom mi ngi ci mi ngi nekk ci lim mu nekk man nak jaañ ci mbeng ci lu la ko apprécier jaañ deful ma da de jaañ ba mi nekk mais da fek man moy sama terang fa leen dar dañ dan tok ma mom mu ne ma yow bi bla neexon da nga gore rek nga ut salang salang bop da bopp dàqu gars yi ñu ma wax de te ba may jàng UMBC ma fu gënon nekk le plus grand gréviste de l'UGB ëpp kenn ëpp ma fit mais dama japp ni aduna du observé naa jaañ jikkoom neex na ma ma ñoo jàppale si ko am na nag ñoo xam ne aussi ñu ngi ci làng bële wax dëgg yàlla ay nit ñu baax ñoo xam ne maag ñoom nous entretenons de très bons rapports ku ci mel ne Abdoulaye Mbuub kooku ma neex la sama frère la kenn gën ko doo ko dégg moom mu sàgg doo ko dégg mu xas xaste loolu mooy homme politique fii loo fi wax lu ñaaw boo liggéey ni ñu teg ko man am na ay kaset yoo xam ne am naa ko dégg ay nit di saaga monsieur le maire di ko xas boo liggéey kenn bëgg ko la xas kenn bëgg ko xas sa yaay kenn bëgg ko saaga seen waa kër donc wax dal rafet même la jeunesse dañuy bañ utiliser réseaux sociaux mais attaque vraiment vous croyez que c'est des attaques fondées wala. non fondé sont parce que ñun aussi par exemple man mi parfois damay man nit na wax ci nit na wax ci collectivité locale lu ma xamul nga dem dem quartier ñu question nga maire par exemple maire da benn tali di jar 400 benn kilomètre de tali di jar 400 millions kam ko mën defar te gu mën defar yooyu état moo koy defar état moo mën def yenn investissement yu luur yi kon am na yoo xam ne wax dëgg ce n'est pas parce que da ngaa bëgg maire gis nga dama nee naa la article ma bind te génnagul dama ne ce n'est pas à ce n'est pas à partir des dénigrements qu'on va bâtir une cité dénigrement yàq kële saaga kële wax loo ni jël ay jeunes du noonu la ñuy kiiwee ndax ay nit parce que aussi même bu amee ñoo xam ne jànguñu amna na ñoo xam aussi ñu jàng lañ mëna tok ci plateau yi leeralal nit ñi man mi parfois lu mu donté lu muy and ak monsieur le maire su mu invité won tay radio di ma wax ci affaireu commune ni mi doxé wala collectivité locale yi dama lay wax lo xamni parce que ben jour récemment dañ ma invité won ci ben débat mais ba ma waxee pare dañ ma né ha ah, yow de wax dëgg li ñu fi wax ni mom débat politique mel ni mus fi am donté fi nga far mais ci digg bi nga wax wax lo xamni mo jaadu lo xamni buñ ko défé dëkk dina avancer man dal lool la gëm wax dëgg yalla politique bobu la gëm té ci lay dox mais Diagne euh, si aussi par rapport ak attaque yooyu mais gis nañu récemment ci biir euh, élection yi présidentielles yi ñu génn gis nañ ay cest à ay euh, changement de de de de lañ ko mën a tuddee. Mhm. yoo xamante ne am na ci ñaari comité yi muy problème mu xaalis bi nga xamante ni ñu ngi ko ciy dégg loolu looñ ci mën a wax. mais loolu lu am la man mii maa nekkoon mandataire école 4 bi école 4 di le plus grand centre au niveau de Tivaouane ñu jox ñu 3 millions comme ni ko Diagne ci waxee. Farba mom la wo s'il n'était pas légitime duñ ko wo té dafa goré ah man mi suñ ma woon dama nan xol wari ma ko lay wax wala envoyé mako mu goré né jox leen ko diw soo ko joxé diw dara ma ko jox mu jox ko diw diw teud ci xaalisam. diw kan moy diw diw ko teud ci xaalis. non suñu waji rek ministre rek xam nga xam nga yo xam ne mais mais mais ban ministre il faut que aussi que que que ñu léral suñu mbokk internet yi nga xam dañuy déglu fi xam nga xam nga xam nga xam man

maa ngi leen di ñaanal yàlla daraja bi nga xam ne moom la waa Ndar info am ngeen am ko te ba ma njëkkee gis sa waajoo gi dama ko ne incha allah lii dana dem ba dépassé leen te gëm naa ko parce que man site yu bëri dugg naa ci yu bëri te gëm naa ni lii dana dem ba yow bu ëllëgee ay conteneurs yi conteneurs ngeen ci yor doo demati fenn yow da ngay toog di yónni ay nit récemment man boo demee Ndar info sama vidéo ma ngi fa récemment rek Ndar info vidéo mag fa kon nag li ñuy wax ñun gis nañu yee yéen leen di jël di ñu jël. mais fii ci te info waxaguñ ci coowal coowal coowal 3 millions yi. ma leeralal ko mooy xaalis ñëw na man nekk naa mandataire ma war a jël 20 jeunes ak man muy 21 ñoo leen a fay bu ñu joxee 3 millions donte yow chaque fois li ngay bàkkoo mooy ba élection yi lay ñëwee def naa ci xaalis waaye da nga def xaalis am ñeneen ñu def xaalis am ñeneen ñu ci xeex Macky Sall dafa am ñu ko jàppale ci suuf. jàppale bi nekkul rek jël xaalis ba pare foo toll di ko tudd du xaalis kese mooy faj affaire bi ñu école kat fii dañu dañu bëri génnewu ñu xaalis génnewuñu dara dañ fi am i mbokk am fi am di jàmm dëkk fi juddoo fi màggee am nit ñi nit ñi du xaalis leen jënd am loo xam dafa rafetul defar nga fi xaalis am na ñu fi defoon lu ëpp loolu te tey amuñu ci Macky Sall dara loolu le passé c'est le passé bu la joxee 3 millions da nga ko waroon ñoo joxe ci jàmm wax nañu te man maire ba muy wax maa ngi toog vidéo yi maa ngi woon ci ginnaawam toog maire juñ waxul waxul loo xam ne bu tooñ kenn dafa expliqué rek joxe woon nañ 3 millions 3 millions yi confisqué nañ ko moom jël la ci xaalisam parce que jaraloon na bu doon ay millions dana ko ci def. le ministre dafa confisqué les 3 millions. waaw yow xam nga ñun ñun dina ñun ñoom daal def nañ li ñuy def yàlla def nu ñun gañe nañu am nañ bu am nañ. mais mais man ñoom gi ni ngay codé wax ji <laughs> xam nga ñun <laughs> ak ñi déglu xëy na suñu sunu xalaat man na bañ a yegg foofu. ñom xam nga ñom xam nañ seen bop parce que benn jour ma ngi dégg Baba Fall ba mu wootee jour bobu non d'expliquer yow xam nga le ministre Abdou Ndéné Sall moom il ne gère que le département bu amé lu mo war rendre compte département bi la commune bi bu laisser ça au maire commune yépp maire ñoy ñooy géré loolu moom nit xam nañ ko légui mm-hmm. maire mo géré yalla dafa def nak au début motax tax dama naan maire na sant yàlla bu baax parce que coow li au début lañ fekk ba gaay yi jëlee département bi dañ koy teg ci loxo maire ànd ci woon mais comme que aussi bugg ñu woon bu perte amoon dañ naan non jaañ si la jaañ si bàyyi ñu jël jox dem nga département amuloo 50 pour cent assumé te non loolu dinañ ci ñëw c'est-à-dire par rapport ak résultat yi foofu dinañ ci ñëw mais coowal xaalis li nga xam moo lëmbee Tivaouane ci la ñuy ñëw. ñun daal parce que parce que parce que may ma may ma parce que euh, déjà ñoom ils ont apporté leur réplique daal di wax ni. ci niñ ko mën a tënkee rek ñi nga xamante ni dañoo réeral xaalis bu takku bay tudd 100 millions seen kër ñooñu lañ war a wax xaalis. non man gis naa loolu loolu xam nga loolu fii dañ naan la kii est-ce qu'il mérite même d'être ministre parce que ay ministre du ay détails yi quoi non ministre du ay détails ministre moomu ko ministre de la république yow fii la ñu fekk fii ci biir élection yi amoon na loo xam ne lu rëy coow bu rëy bu fi nar am. parce que comment ça fait que yow ngay nekk une autorité politique bu kawee nekk ministre nga taxaw ci parti jàmbur pur nga naan pur dana joxe dana joxe ndigal xoolal erreur bu rëy ba bu rëy boobu noonu li ma koy conseillé mooy gis nga booy waxati balaa ngay wax dangay xoolaat bu baax la ngay wax un ministre du n'importe quoi nga war a wax da ngay segg baax li ngay wax ut un bon entourage coowan nag li may wax surtout bëri fi ay mouvement de soutien am ñu lappi-lappi sama ragalu ma ko de

ci ban non après 3 millions il faut nga ñëw aussi ci li nga wax muy ban mouvement de soutien nga ni doo ko tudd kan la exact non xam mouvement de soutien yi bëri na fi mouvement de soutien bu mel ni Matar non bëri na bu baax la Matar Diop mouvement bu baax la parce que la quoi na ba gis ni ni dëgg fi la nekk doful de ñëw na liggéey si na apprécié nañ ko bon suñu frère Ngalgu mi ngi liggéey liggéeyam ñoo ngi rafetlu di un frère monsieur le maire wax dëgg yàlla frère am la réeréwuñu. Ngalgou il reste impartial moom moom moom tegul fenn tànk quand même ci ñaari ko nii li mu gisoon nii da ko doyul parce que commencé fait-il que li dul yoon mooy ñëpp d'accord nañ ni le ministre moom mooy ron département bi mais communal bi nan la nan la ñaari comité mën a man su mu neexoon taxaw ne ma loolu xam nga loolu kenn xam lu mu ron loolu fii kes la am fii kees la am. mais millions yi réer seen kër loolu lañ ciy wax. loolu amul loolu loolu amul xam nga déjà sax ko dara dara dara dara réeru fa. non non non wax la rek. ay wax la de yëpp yàq deru saa rek saa waay saa waay ku de maire ku jubla man maire maire bu jub loolu du ma ak moom de man maire dama koy testé suba ak ngoon guddeeg bëccëg li ñu ànd yëpp dama gis ci moom ay valeur yoo xam ne wóor na yàlla lu jafe ci homme politique maire non nga maire laa ñu ngi xam sax mu dem man naa leen bis maire jógee fii jaamaloo gars yi de. ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw de façon brève ci ci ci ci résultat yi nga xamante am na ci commune bi am ci. Euh, département bi mais bala ñu ñëw fofu aussi dañuy tàbbi rek ci école 4 parce que école 4 déjà gis nañ ni euh, biir APR même euh, waxuñu sax ci ñaari comité mais da nga gis ci benn comité ku ci nekk bëgg ni yow yaa gagné école 4 ban gis-gis nga am ci loolu te jàpp nañu yaa fa nekkoon mandataire. bon école 4 du ma ne man sax ñu ñoo gagné ñun ñi nga xam ne ñoo légaloon ñu amoon la légalité ak la légitimité ñun ñi nga xam ni procès verbal yi maanaam procès verbal man maa ko yor man mii maa ko yor man maa ko demoon déposé carte mandataire bi man mi le sama tour nek Cheikh Abdoul Dia man ma jëloon tannon de concert nak avec Matar Diouf avec Lamine Diouk di nuyu bax Lamine Diouk suñu coordonnateur ak Mansour ndjay ak ñom bilil Ka ak ñom euh, Ami Dramé ñom Anta Mbaye ñoom Fat Ba ñoom wax deug yalla ñoo togon dresser 20 personnes 20 personnes ñepp a gis seen bop moy jeunesse bi comment ça fait-il que yow nga ne yaa liggéey te yoro ben keuyit bu prouver ya liguey ñun daal ñoo liguey ñun ñu am ndam ñu jël kayit yi jébbal ko préfet ñu jël kayit yi jébbal ko yoon yoon jël résultat yi jébbal ko au niveau national bu ñu amee kenn ki ñu war a félicité ñun ñii la. bu mais mais suñ bëggee réeral nag suñ bëggee réeral nit ñi xanaa ay dof lañuy ñuy réeral am na ko xam ne ku ci ñoom la bokk mi ngi dëkk Tivaouane olof ba ma demee ci moom di ko wax ay temps dafa gëmoon li mu la wax ni de man dinaa déjjiti ñoom ñëpp indi leen ci monsieur seen jeunesse boobu. dinaa leen déjjët ci andi leen ci mucc te commencé naa ko def am na ko xam ne récemment dafa da du ma wax turam de d' accord na pour mu yóbbu ci monsieur le maire mi ngi dëkk Tivaouane Olof fii jigéen la. man moom fu ma toog yow dama lay leeralal ni midi affaire bi nu mu demee parce que en droit on di la preuve et la rançon des droits mën nga nag jéem a sëlëm nit ñi rek waaye nit ñi buñ toogee xam na bu baax fi affaire yi nekk. mais les résultats bi nga xamantene amna au niveau communal ak euh, au niveau départemental ban commentaire nga ci def bien que gis nañ ni euh, le maire Diagne Sy moom moo le coordinateur communal bien que aussi ñaari comité amna na cest à ñun non rek lañ ko mëna a ba paré jël ci recul mm-hmm. mais aussi euh, au niveau départemental xamoon nañ exclusivement de façon claire qui moko ko le ministre Abdou Ndene donc loy wax ci résultats yi. waaw xam nga buñu ñu waree gërëm gërëm ak gërëm mom bu am cyant bu cant bu am mom ci monsieur le maire rek la jëm parce que nit ñi da nga bëgg ñuy wax dëgg te yàlla tax gis nga élection euh, yi jàll yële jàlloon ba yële jàlloon ba fi président ñëwee dafa am wax jum wax mu ne waa Tiwaawan bu fekkoon yéen élection présidentielle la yóbbu ngeen ma deuxième tour waxoon na ko gis nga bañ génnee ca salle ba ñëpp monsieur le maire lañ jox ñun baram ñëpp nag moom sax xam na ko ñëpp dañ ko joxoñ parce que c'est le maire ñëpp ko joxoñ ne ko yow a yow yow te pourtant bo te pourtant boobu Abdou ndene mi ngi fi mais Abdou ndene dafa demoon laaxatu ci département bi taxaw ne ko yow mi la election yoyu yoyu passé dama wax deug te yalla tax de election yoyu passé man tok na ak Abdou ndene ak maire ci ben fuñ demone campagne mune ne jaañ si bu ñu mais tiwawan yow lañ ñuy wax buñu ñaké yow lañ ñuy wax tok na Abdou ndene waxoko kon nak buñu gagné tiwawan Tiwaawan ah, il va sans dire que jaañ si mbeng la ñuy wax bu ñu amee kenn ku ñu war a gërëm jaañ si la ñuy war a njëkk gërëm te wóor na ma président buy woo jaañ si mbeng lay woo ba pare bu ko woowee gërëm ko woo nag les autres maires ces autres maires collègues ñi xam ne ñoo gagné dans le département yow nag bu ñu dajalee département bi kat da nga perte ak xëccoo bu metti ak coow bu metti assumel man j'aurais voulu que moi. mais il perdre le département. Ah. mais y a aussi déjà un comité qui au niveau départemental bi le eh, eh, le maire de il y a, un ci qui hmm. muy au niveau national le président Il perdre. est ce que moom déjà que aussi li a résultat non non non non Je ne pas xam nga nak a euh, <laughs> est très intelligent

jànc yi dégg naa benn baat bu ñu faral di wax nee na président baat boobu la ko waxoon vous auriez vous auriez pu loolu la faral di wax baat boobu nag lay faral di wax moom nee ko président loolu la ko wax kon mënoon ngeen ko cëralee poste boobu noonu mais day wane ni bu fekkee département bi ñoo toog ni jànc mbeng lañ jël lañ jël ci grande majorité bi day wane ni moom kat am na liggéey bu mat boo xam ne monsieur le ministre war na ko liggéeyaat. mais ñu ñëw ci résultat résultat yi nga xamante ni Mérina Dakhar am na fa. te le président ñi Gningue jiite ko te bokk ci yéen comme ni nga ko waxee muy responsable yu mag yi nga xam ne nee ngeen yi nekk ci commune bi yéen lañu àndaloon. non xam nga nit ñi le plus souvent dañ naan mairie na ay Aymérou mi ngi dëkk ngi gis moo fa gañaa ah. Aymérou moo gañ ngi gis. mais fi mu nekk coordonnateur daf ko perte comme lool ngay waxal le ministre déjà parce que foofu yëpp moom moo koy coordonné n'est-ce pas. waaw mais mais xam nga man résultat yi xam ne jot naa ko xam naa ne daal moo gañ non mais résultat yi nga xam ne jot nga ko boo ko. <laughs> léegi nag. gagné arron gagné arrondissement l' arrondissement de Médina Dakar dafa rëy dafa mel nga ne comme nga ne l' de Pambal Pire ci la bokk arrondissement Pambal Pire ci la bokk nit ki nag mën nga gagné Pam mën Pambal ñàkk piir wala ñàkk beneen beneen beneen beneen commune rural ñu dajale ko ñu ne yéen ñàkk ngeen arrondissement ba léegi nag responsable ba nag xëy na moom mooy am tort. te en fait que moom wax dëgg yàlla fexe na ba gañe dëkkam mais li am solo daal mooy ku xam. mais mais mais loolu loolu loolu loolu ngay bañal ay miiru moom nga bëgg euh, li ngay nangul ay miiru moom nga bëgg a bañal euh, le ministre Abdou Ndéné parce que déjà boobu boo waxee ni euh, ay miiru c'est-à-dire moom base fi mu nekk dëgg fa foofu gañee na fa mais boo defee la somme totale des collectivités wala yu ruq yu sew saani daf koy perte loolu rek moo dal dal le ministre n'est-ce non ministre ban ministre gañul fenn de mais même bureau bureau de vote am mi ngi 51 mais gagné nako ko. loolu Tivaouane ñun man mom ma man 63 la am école 4 ministre bi mom moom man ci ñi contribuer président de la République gagné man ci la bok 63 la am mom 51 mais ñi cont ñi contribuer. école 3 bi 51 la fa am jaañ ci mbéy am ñaata. résultat yëpp lañ am ñun lépp lañ am. ay ay mairie aussi ñi contribuer à ce que seen. gañe gañe yu métti soixante dix pour cent la am léegi dëkk yooyu nag ay mairie ñoo ko sonal. Cheikh Cheikh xanaa da yor say say say procès verbaux bopp. <laughs> man yëpp xoolal yëpp laa yor parce que fi mu damay toog xaar rek di waajal article numéro bi yi ma ci yor nii man saa yu mbindee article boo dem l'observateur dafay génn maa ngi toog xaar rek parce que ñoom seen résultat yëpp laa dajale ko compliqué ko teg di donc vous voulez confirmer que Aymirou miiru gagné moo gën a dëkkam. moo gën a dëkkam ay miiru jàmbaar la mooy mooy jàmbaaru Kajoor ay man Aymirou, man wax dëgg Aymirou, miiru dama ko yàgg apprécier xam nga ay miiru neex ma man dama gëm autorité. mais résultat résultat yi nañ ko commenté. <laughs> parce que non non xam nga résultat yi mooy lan ay miiru daal moo gën a dëkkam. moom na daal ba dëkk moo gagné. gañe yeneen dëkk mais mais territoire bi nga xamante ne moom moo ko coordonné yëpp gañew ko hein? non non ay ñaar ay benn ñaar ak ñett yooyu rek yéen nag soo ko boolee xëy dafa mel comme Pire si vous prenez le cas de Pire Pire c'est comme ça Pire sëriñ boobu moo raw parce que Pire ville Pire ville ben quartier rek mo mo indi tendance bi moy fi pël nek nekk mom maké fa gagner bu baax mais nak Pire ville encore ci ville bi serigne boobu dafa perdre deuk aller bu ñu nak ci le ci le serigne boobu rawé donc non la mel parce que en tant que aussi autorité aussi parfois affaire day metti ci ñoom xoolal man loolu ndeysaan rek loolu dafa am jàngat bu bari buñ ci jàngat. mais mais Pire aussi quand on fait la somme des des des centres hein? de vote. non non non da ngeen koy perte. non da ngeen fay perte. non ñoo raw déedéet borom présidentiel la dañuy ñàkk parce que. mais présidentiel lañ nekk. non non bu doon bu doon déet xam laa bëgg wax bu fekkoon pire rek lañ yaakaaroon tey suuf lañ jëm parce que pire moom wax yàlla baaxul baaxul moom dañoo raw dafa mel comme nga ne da trent cinq 35 trent 38. ki topp ci yow am am am am am 34 wala 33 xam nga loolu loolu baaxul mais loolu ça se comprend. parce que dëkk bu mel ni Pire rëy bay bëgg a dee am benn autorité politique kese Serigne Mbuub lu ne mën ko fay def mais dëkk bu mel ni comme Tivaouane am ñaata autorité kenn ku ne banque sa loxo boo nee nii rek mu ne monsieur le maire monsieur le maire monsieur le maire monsieur le maire daa mën def lépp jàmbaar la mi ngi def li mën kenn ku nekk ca aussi fa nga nekk da nga war a def lu tolloog monsieur le maire la muy def looloo fi nekk waaw ba barki démb ba ma waa Alburax invité ba ñu posé question ci nekkinu étudiants yi ci université ya dama leen wax ni étudiants yi ñoo ma envoyé message nee ma dañoo sonn maa nag dëgg la dañoo sonn waaye jaañ si mbeng moo leen utal appartement fële ci Dakar bu ko jaañ si mbeng mënee def Abdou Ndéné dafa war a jël appartement ministre la xam nga ñoo xam ne Macky moo leen jox ndombal tànk Seydou bu ngay tuddee jéem Cheikh Tidiane Diouf donte sax ne jeune la am na ambition mu te mu si mu jéem loolu moo fi nekk fii ñeen dimbal xam nañ ko de léegi léegi léegi bon Euh, gis nañ leeral yi nga xamante ni nga ko par rapport ak les résultats yi nga xamante ni moom moo tukkee ci présidentiel yi ñu jóge donc léegi dañuy jëm léegi ci li nga xamante ni ça vous concerne directement yéen ak seen comité et je pense que c' est le moment où jamais ngeen wane résultat bu nga xamante ni exclusivement yéen a koy moom muy local yi ñu jëm parce que comme ni nga ko waxee puisque à l' interne y a des dénigrements euh, côté bii côté bële mais léegi local yi ban taxawaay ngeen ci am est ce que fi mu toll nii contexte bi nga xamante ni APR am na ko au niveau euh, local est-ce que yéen dal na seen xel ngeen demee ci nonu ci local yi pour reconquérir maire bi. waaw waaw man de japp naa ne dal na bu baax a baax a baax a baax parce que élection yi ñu génn nii xam nga parfois man bëgg naa yow tamit boo toogee ak ñoom nga poser une question nañ la wan seen comité électoral les différentes personnalités ah qui le compose comité électoral boo xam ne da naan da ngay da ngay lim dans le vide da ngay joxoñ tudd tur boo ne URD. nga ne ka fa nekk mi ngi tudd nangam boo ne yeesal nga ne ki fi nekk mooy nangam nga ne mouvement su soutien yëpp ngay lim naan diw moo fi nekk diwoo fi nekk diwoo fi nekk. boo xoolee parti politique yëpp LD yëpp yëpp yëpp yëpp yi fi nekk yëpp ñëpp jaañ si mbég lañu àndaloon. waaw ah, loolu loolu li nga ci wax moom bon dañ ci indi benn leeral rek di xamal. di xamal mbokk yi nii euh, comme lu mu wax par rapport ak ñoom euh, beneen comité bi mi nga xamante ne ministre mu ma ko jiite réplique bi ñu par rapport ak yi nga xam avancé na ko ak ñeneen ñi nga xam jot nañ daal ci Tiv Info donc ñun ñoom lañ ciy xaar saa su leen neexee ñu ñëw indi seen tontu ci loolu ak seen leeral ci loolu par rapport ak seen comité bi nga xamante ni bu ñu dégloo ci li Cheikh Abdoul Dia mooy comité bi légitimul légal aussi amul ay personnalités yu am solo yu ko composé. ñu dañ leen di déglu bu ñu seetaanee ñun xam nañ bu baax dañ leen di seetaan dim di lim dans le vide nañ xool ñi nga xam ne ñoo compo yéen daan ngeen ñëw te télévision daan nañ ñëw mais danaan lim ña fa nekk ñëpp kon nañ jàll ci page boobu li fi nekk nag li jëm suñ kanam mooy local yi ñun dèjà présent commencé waat dañ ko dox ñu ku ñu xam ñoo ngi dëkk Tivaouane Olof fii dañ dëkk ma ànd ko ay jeunes yu dëkk dëkk Seydi Jamil Arafat xaw ma kan waaye école cadre bi ñu séqi nii ak ñoom ñun fii ñoo ko moom dañ fay dëkk dëkk ci dema demalante ak nit ñi di saafante ak ñoom bu ñu amee problème di ñu ko wax lu laa lay wax de mbir bi nag nekkul autorité rek toog fële élection ñëw nga élection ñëw rek nga si ñun dañoo dëkk ak ñoom nekk ak ñoom subaak ngoon guddeeg bëccëg élection bu fi mën mënti ñëw buñ cëppeloo see fii dañ koy gañe donc na man depuis daaw ba léegi ba ma ñëwee école cadre bi mag ñi ma ko siq ñoo koy Matar Diouf nag foofu dinaa ko fa tooñ tuuti <laughs> parce que maa ngi dégg parfois sama waayal nag parce que ni ku baax la Matar Matar ni ku baax la mais temps yii dégg naa benn vidéo mu def mu naan <laughs> école 4 bu mu ñëwee attention ah avant ngay ñëw parce que Diop si dañ daje ak moom mu liggéey ñu liggéey jàmbaar la waaye dañ ko dóor ba cinquième la jël deuxième de jëlul troisième jëlul quatrième cinquième la jël parce que dëkk bi nit ñi ñi ñu xam mooy ñu leen di jege. man saa yoo ne cëpp teewaan fii hmm? ku may seet si dama fekk maa kër kër yëpp laay dugg. mais jigéen boobu nga est-ce que jigéen boobu boo leen ci appesantir di ngeen am euh, le bilan positif pour mën a amaat réélection. est-ce que le maire jigéen vraiment sa population. bu baax a baax a baax non jaañ ci wuu jaañ ci muy def euh, liggéey bu am solo. parce que euh, gis nañ récemment ati ci ginnaaw la xalif général mm-hmm. muy Serigne Mbaye Sy Mansour di ko ziar bu baax aussi di ko jox wàccuwaayam. doon na ko junj lu mel noonu comme quoi que Tivaouane bu soxlaa dañuy soxla moom jëmmam mu teew. waaw waaw loolu loolu loolu junj la woon parce que ñun sax fekk ñun ñun fi lañ fekkoon mais tamit par la man gis naa ay vidéo yoo xam ne gàmmu gii paase sëñ Mbaye Sy Abdou non dafa dafa wax ci monsieur le maire lu doy waar sëñ Mbaye Sy Abdou. vidéo yi maa ngi moom ñëpp gis nañ taxawaay bi nga xam ne jaañ si mbeng mi ngi koy am fële ca jak saaw gàmmu jak man daal moom rek laa fi gis ci autorité boo xam ni wax dëgg yàlla kër gi daal. mi ngi koy taxaw mi ngi taxaw ndaw ñi mi ngi taxaw mag ñi mi ngi taxaw jigéen ñi koo xam ne ba nga ba daal defee jàmm wax man sax nga nekk maire mais nga nekk DG au moins plus de cinquante jeune nga recruter leen moom kese moo ko def gum fii ci Tivaouane bu recruter cinquante ñeneen ñeneen ñu recruter vingt wala nag nangam léegi jeunesse bi jeex mais ut ay jeunesse di leen ngemb di leen bindloo di leen saagaloo fayul dara waaw mais donc kon euh, ginnaaw bi ko sëñ bi wàññee euh, ci la commencé amaat taxawaay boobu noonu jege la population loolu nga bëgg a wax. gis nga jour boobu noonu nga fàtte ba bëgg sëñ bi wax jour boobu noonu ca 6 heures man Massamba Diagne Matar Mbeng ak Ali ñoo nekk doon kër monsieur le maire. du ko fàtte ba léegi dafa fekk fekkoon ne jour boobu noonu ay espagnol ñoo waroon ñëw Sénégal doon yëngatu ci wàllum portabilité noonu la ko jaan ci Mbeng waxee woon ci affaire daal xam naa daal affaire IPRES la woon. mu doon liggéey boo xam ne daal ci ni mu koy jàppee liggéeyu état bu mag la woon ak loo xam ni état état daal intérêt bu rëy la ci am mu toog ba 6 heures te jour bu gàmm la woon de mu xool xool xam ni bu demulee du baax donte nag war na teew fii mais Diagne si Mbengue même mu fi nekkulee am na aussi ay jàmbaar yu ko fi nekkal xëy na moom parfois tamit jëmmam dañ koy soxla mais wax dëgg aussi ba mu dëggee loolu tamit def na tout tout tout ba lépp loo xam ne amati na ci dëkk bi mi ngi ko fi fekk te wax dëgg yàlla koo ko xam xam ni jàmbaar la. bëgg na kër gi te bëgg na aussi képp ku bëgg kër gi jaan si mbeng daal yaa da ko yàlla lafal cat ci li ñu jëm nii mu nekkaat candidat yàlla dogal mu jëlaat mairie bi parce que ñun loolu bëgg incha allah ñu ñoo ciy dox te danañ ko am